Salut amee internet Nabouza is back ci biir émission bi di 100% people ma fas yéene ñëwaat nag tey ci àjjuma ji di cinquième numéro émission bi fas yéene nag ñëw ak jégleel leen li nga xam ne moom moo di information people ak fait divers yi gën a fës ci biir internet bi. ak ñu tàmbalee ko nag ki nga xam ne moom it dafa mel ni buzz dafa bokk ci àddunaam buzz dafa bokk ci vie am ci moom du kenn nag ku dul Mbathio Ndiaye moom métti moom moo daal daal di def benn vidéo boo xam ne mu ngi daal di jur polémique ci biir réseaux sociaux yi ak ñu ne lan Mbathio Ndiaye cher soxna ayda jàlloo la vidéo ki fait euh, polémique moom daal daal dina dem ci cant soxna Aïda yooyu di fecc di kàppar ñi di fecc di kàppar ñi ba mu neex muy génn xaalisam di baatare waykat bi fa nekkoon di way xamuñu nag lan moo waral mu jublu ci loolu ndax gis nañ ne euh, ki nga xam ne moom moo di soxna Aïda jàlloo euh, jamono ji nag dafa daal di am problème ak li nga xam ne moom moo di njiital cantaakun nii ba ñu xam taalibe yi nga xam ne ñooy taalibe Béthio yi daal ji xaajaloo ba ñaar problème boobu sénégalais yi di ci dox pour mu mën a nekk benn moom nag mu dem di yokk xar mi karaw dem ca cant soxna Aïda jàll ya di ca fecc di maaj di fecc di maaj ba mu neex ko rek daal di ko ñaf ci réseaux sociaux yi mbaaco daal doy na waar mu ngi noonu yéen a ko gisandoo jàmm bugg ci dara bës daal lay dund di ko respirer waaye tamit di ko toogaale mu ngi noonu loolu dañuy daal di demaat nag ci beneen actualité people du net mu concerne kan nag ki nga xam ne moom lu mu def rek ñu daal di ko jazakaliser mooy kan maam góor jazaka ak gannaaw nag ba nga xamee ne defoon na concert foofee ca si ñu jazakaliser woon ko waaw waaw mu metti woon ko lool jur polémique amul woon sax benn nit mu taxaw ci seen bi gisul kenn jaaxle wéet daal di ci dem moom nag la ñuy daal di jazakaliser waat foofee université Cheikh Anta Diop ku ko def nag ñenn dong la lu dul étudiants yi étudiants yi daal gannaaw ba ñu meree ba futtu daal di wax seen i njàqare kenn faale wu leen ñuy gëraf ñu ne déedéewaay ñu daal di génnee album ba nag. album maam góor Diazaka ba lañ daal di génnee daal ko lakk ba mu xonq cur cur cur cur jeex tàq ba mel ni doomu taal waaw waaw nga ni ma loolu la daal étudiants yi daal di def kookee di maam góor Diazaka jamono ji nag moom maam góor génn na daal di wax nee na nag jaaxle na ndeysaan yërëm nañ ko sax jaaxle na lan moo waral la maam góor jaaxle maam góor nee na moom loolu nga xam ne étudiants yi def nañ ko seedeem yooyu moom en personne la gën a naqari la gën a jaaxal ndax nee xamul la la def étudiant étudiants yooyu ba ñu lakk seede yi ba pare lenn mooy ay doomam ngi foofee ca université nee na am na benn doomam bi nekk université te am na keneen koo xam ne déwén université lay daal di jëm mu ne kon moom étudiants yi ay doomam lañu ay xaritam lañu ay frère am lañu ak ay sœuram lu waral nag ñu daal di jël seedeem yëpp daal di ko def doomu taal loolu nag moo jaaxal kii di mbili gi di maam góor jazaak Ah, buñ jógee ci loolu ñu daal di demaat nag ci beneen actualité la du nett kii nag su kenn la ci suñuy people mais moom daal moom ak jaara daal bu seen pati gàlle daara wutalewu leen moom man dama yaakaar ne moom mii tamit amul famille Sénégal wala amul mboq Sénégal ndax moom yére fu mu gën a bonee gën fa gàtt maanaam deux pièces bi jaara def sax parfois day gën a sedd sax moom li muy def kooku kan la du kenn ku dul Ngonis Kramel Ngonis daal moom nee na bu xottiwul fantam ba ci ndigili rek du kontaan waaye tamit bu solul culotte su fes carrément du kontaan bu deful daal yaramu neen foto wu génnee dafa mel ni daal moom pour moom deful dara mu nekk nekk nag loo xam ne mu ngi jël polémique ci réseaux sociaux yi mu ngi daal di def buzz lu ko waral sénégalais yi nag ñu ngi jug ñu ngi ñaxtu ci façon d'habillement bi nga xam ne moom la Ngonish Caramel di daal di def en tout cas doy na waar am na ay mbokk amul ay mboq moom mu ngi ci benn mondam ci biir Sénégal mu nekk nag loo xam ne nag ñaawlu nañ ko ba fu li ñaawlu yem buñ jógee ci loolu ñu daal di demaat ci beneen actualité people du net bi nag mu ngi daal di ak ki nga xam ne nag mooy suñu international boobee génnoon àdduna semaine yee passé muy Pape Bouba Diop moom nag jabar ji moom mooy continuer di wax ci digganteem ak ki nga xam ni moom moo di borom kër ñu ne les confidences de Marie Aude Diop sur sa conversion à l'islam et sa rencontre avec Pape booba Diop Marie Aude nag moom moomee di jabaru Pape Bouba Diop daal dina wax nan la rencontré ko kii di jëkkëram nee na nag ni ko rencontré lenn ra moom nee na mu ngi daal di juddoo foofee di Lens fa la yaroo màggee waaye tamit esthéticienne la maanaam ñooñee di def yëf yu baax mbalim jigéen maquillage wàllum li nga xam ne moom moo di pose ongle yëpp lépp daal luy esthétique jëmale ko ci botewu jigéen moom nee na loolu la doon doon def ah, moom nee na ah, benn xaritam boo xam ne moo nekkoon capitaine yu équipe nationale bu lens kookoo ko présenté woon Pape Bouba Diop ñu nekkoon nag ay xarit di ànd kooku na mu ngi tudd Eric Sitoka ah, moom ñoom ñoo àndoon di ànd di ànd di ànd ba bi ñuy Pape Bouba Diop di daal di ñëw ci li nga xam ne moom moo di sélection coupe du monde 2002 boobu nee na fekk na ñoom ñaar ñoo xamante woon nee na nag après bi nga xamee ne Pape Bouba Diop pare na coupe du monde bi mu doon dem nag rejoindre nag fu Angleterre ci la ko daal di récupérer ñoom ñaar ñu àndandoo dem toogandoo Angleterre après Angleterre ñu nekk Grèce bi ñu jógee Grèce nag ñu daal di dem en vac ñëw en vacances fii ci Sénégal nee na nag ci biir loolu la daal di tuupee daal di nekk nag musulman li ko waral nag moom nee na benn frère papa yi Pape Bouba Diop ak gannaaw bi nga xamee ne nag àndoon nag Pape Bouba Diop daal di ñëw vacances ci la ko kooku proposé na nga tuub moom nag bi ma ko laajee ba xam bëgg nga tuub nee na uh, oncle Pape Bouba jóob boobu mu ngi tudd pap As Diop nee na mu ne ko waaw bëgg naa tuub ci lañ ko daal di tuubalee Pape Bouba Diop nag moom mii di jëkkëram moo ko aidé mu xam lu bari ci wàllum lislaam moo ko jàngal suraat yi jàngal ko ni ñuy jullee ba ci turu musulman bi nga xam ne bi mu tuubee noonu la tudd nee na mu ngi tudd Fatou Bintou jóob moom lañ ko daal di tuddee ci li nga xam ne moom moo di tur musulman bi léegi du ko euh, tour boobu nga xam ne nag moom moo di mari xëy na nit ñee ko miin mënatuñ ko bàyyi ay mboqam aussi miin ko mënatuñ ko bàyyi looloo waral tur bi continuer mais euh, désormais léegi fàtt Binti Diop la daal di tudd. buñ jógee ci loolu dañuy ñëwaat ci beneen actualité fait divers bii nag fii la bët yem waaye ndaw jànq bu bëgg lu baax lan moo xew mu ne accusé d'avoir chipé les bijoux en or de sa patronne estimée à 20 millions de francs CFA la domestique Marie Ndour avoue avoir pris une partie des bijoux pour les porter de temps en temps kii nag moom mooy jànq bu bëgg lu baax jank boo xam ne bëgg na ay million te bëggut sonn jank boo xam ne bëgg na ay oo te bëggut sonn mooy Marie Ndour daal moo fi def lu ne tege moom daal di weddiwu ko gannaaw bi nga xamee ne nag woo nañ ko foofee ca parquet moom it daal dina avier li ne mel ne moom nee na sàcc ko woon pour jaay sàccul woon budget pour lan lenn nee na dafa gis patron bi daal di bëri ay takkaay rek moom it mu ne xaar mu jël moitié bi moom it yóbbu ko buy génn moom it di ci takkaay di ci jaayu di def lu ko saf alalu jàmbur ci loo xam ne bañ ko estimer mat na 20 millions de francs CFA moom nag nee nañu 6 mois d'emprisonnement ferme c'est ce que risque la domestique Marine euh, Ndour moom nag lañ koy waaj a tëj ci les déyo e boobu nga xam ne daal dina ko def ñu ne nag li nga xam ne moom moo di procès boobu fixé nañ ko le 17 décembre bii di ñëw incha allah li ñuy joxe nag li nga xam ne moom moo di verdict général en tout cas doy na waat sama mbokk jànk nag heure boo dégg bu bees waaye bii nag mooy tës ak bëgg lu baax. bu jógee ci loolu ba tey ci seen actualité fait divers ñu daal di ñëwaat nag ci beneen actualité bii nag moom doy na waar ba fa doy waar yem ba man mii di wax sax ñemee ma ko tudd lu ko waral ñu ne un célèbre journaliste couche avec ma mère et lui envoie des vidéos porno lii daal ñoo ko déggandoo man dama yaakaar ne. suñu réew mii dañ koy waaj a jaay ñuy toxu en tout cas <clears throat> lii daal la soxna sii daal di xamle ci biir réseaux sociaux yi nee na daal benn journaliste bu mag moo romb ñëpp xoolul kenn ku dul yaayam joojee dal di ko doxaan nag mu doxaan ko yemu ca jël yaay ji di ko envoyé ay vidéo pornographique ba doom ja nag faf ca yem fi mu ne nii nag muy misère loolu di ko naqarlu di ko misère di ko naqarlu ba mujj nag daal di ñëw nag ci réseaux sociaux yi daal di ko fi xam lee mu nekk nag loo xam ne nag doy na waar ba fa doy waar waaye tamit gone nag ne yem place doom yow lu sa yoon ci sa téléphone yaay ak sa faru yaay ak ki muy bëgganteel ba nga koy lijjanti en tout cas doy na waar baa ngi noonu. Ah, buñ jógee ci loolu ba tey dañuy ñëwaate ci beneen actualité fait divers nag mu nga xewee foofee ci diwaanu Maroc Maroc nag ñu ne cinq personnes arrêtées suite au meurtre du sénégalais Amady Niang gannaaw nag bi nga xamee ne rey nañu nëgg nii démb benn sénégalais bu tudd Amady Niang foofee ca diwaanu Marrakech moom nag daal dinañ jàpp cinq personnes yoo xam ne ñoom la ñu daal di suspecté moom nag nee nañ avant ñu koy rey ñu ne nag benn. sénégalais moom moo ko daal di rey mais avant mu koy rey dafa daal di def euh, li nga xam ne nag moom moo di dóor ko ak ay arme blanche jàpp ko ndulli ko ba mu nooy népp moom ak ay arme yu ni muut mun la ko daal di ko dóoree ñu ne déddawaay mu daal di ko rendi xatet kooku daal di dee ñu ne sénégalais boobu nag mu ngi dëkk fii ci Tambacounda mais ki ko rey nag moom daal na daw sénégalais la tamit daw na ñu ngi koy war ba léegi gisaguñu ko waaye yeneen cinquième yi personnes xam ne ñoom ñoo bokkoon ak moom def jëye bi ko ay complice am lañu ñoom jot nañ leen jàpp enquête bi nag mu ngi continuer di wéy pour ñu xool sénégalais boobee def moroomu sénégalais bi fan la làqatu ah, buñ jugee ci loolu ba tey ñu ñëwaat ci beneen fait divers ah, fait divers bii nag mu ngi concerné ba tey sénégalais yi nee naa la ñun moom dama yaakaar ne rek dafa amul lu ñu possédé ah, bii nag moom it doy na waar ba tey ci jànk ji laay wax de ñu ne li nga xam ne nag moom moo gën am fës ci réseaux sociaux lii la engrossé par son patron chinois Rose jaata s'est fait avorter par l'infirmier de quinze ans coupable d'une dizaine d'interruptions mu nekk naka boo xam ne doy na waar ba fa doy waar yam lu ko waral nag muy que ne Rose Diatta mi moom nag moom moo doon liggéey ak benn chinois ñuy liggéey na ba mu yàgg mujj gi ñu daal di sekk li nga xam ne nag moom moo di euh, wàllu wàllum daal euh, rapport sexuel maanaam génn ak far ak gel lañ nekkoon ba chinois bi daal di ko ëmbal euh, bi mu ko ëmbalee nag ñu gis ne chinois bi da ko daal di ba pare bañ ko euh, bi mu ko bañee nag la dem di jënti gis ki nga xam ne nag moom moo di benn infirmier boo nekk xam ne dafa nekk en retraite à l'âge de 75 ans Ousseynou Ndiaye moom nag la daal di dem gis pour mu daal di ko defal lii nga xam ne avortement bi la moom nag daal dinañ leen jàpp yoon daal dina leen teg loxo ñoom ñaar ak ñëpp ñu ne nag ñu ngi risqué li nga xam ne moo di 6 mois ak ñaari atu kasowo lëmm mu nekk nag loo xam ne doy na waar ba fa doy waar yam jànq ji nañu bàyyi xel bu baax suñuy patron yi waaye tamit ñun jigéen ñi nañu bàyyi waat xel bu baax suñuy bopp ndax yenn erreur yi jamono ji war nañu weesu di ko daal di def mu nekk loo xam ne doy na waax ba fa doy waar yam voilà c'était votre émission 100% people Nabouza is back doon leen ko jagleel di am nag mbégte ak contentement ni information yi ma leen jox tey neex na leen jox dig daje nag ëllëg ci samedi ji d'ici là nag restez scotchés dans vos sites internet VIP info ak VIP people point net merci beaucoup à la prochaine bye.